li deuxième action bi la. bii deuxième bi la. action bi mooy bi. Euh, mooy bi Karbala. ci première action bi lay wax. bu fekkee mu noo indi première action bi ñu ba libéré mbar mi mu dem Karbala xa eh, eh, mi ngi ñëw. Eh, kay kay kay kay kay. na Karbala dem na Karbala dem na. macha allah dama lay laaj. waaw Modou Mbaye. xam ngeen yàgg ngeen si làmb. Balla Gaye Balla Gaye Bombardier yi. waaw fa la chute bi amee. si diggante ñaari saako yi. waaw seen eh, wol ma ko wol ma ko mu ñëw wol ma ko mu ñëw. Modou Mbaye Karbala kaay. Modou Mbaye kaay indi laa tëmbal yi Karbala kaay xool kaay. kaay grand defal nank rek. Karbala kaay indi laa tëj Cheikhou dellool loolu. Cheikhou dellool ma loolu. Cheikhou dellool loolu. Cheikhou xaaral taxawal taxawal Karbala ñëw. kaay kaay kaay Karbala kaay kaay chute baa ngi nii waa Karbala sigil nga xool chute baa ngi nii fii ngay wax fii daan na ko dafa ni daan na ko Karbala kaay kaay mais da ngay nga wax ak Sénégal Karbala da gis ni fii da nga koo daan dafa teg fees Karbala teeyal nga wax adduna ñoo lay seetaan Sénégal ñoo seetaan Cheikhou ñëwal aca Cheikhou ñu dem Cheikhou ñu dem Cheikhou ñu dem Cheikhou ñu dem Karbala xoolal action bi. xoolal action bi jëlal sa temps xoolal action bi xoolal action bi. waaw xoolal action bi ci biir la amee. xoolal action bi ci biir la commencé. ba léegi ñoom ñaar xoolal bi ñoom ñaar ba léegi ñu ngi dem. ñoom ñaar mbokk yi ba léegi ñu ngi dem Cheikhou waa Karbala. waaw kal na ko fii ñu dem. ah ah ah ah ah Baye Balla moom dëgg neexul Baye Balla dëgg neexul. Baye Balla fii. lii dafa leer lii dafa leer ah am na xam na lu ko yoon may. xam nga lii. mais Baye déedéet déedéet Baye Balla yàqul xam na lu ko yoon may c'est le maître du terrain. waaw c'est le maître du terrain. mais xam na waaw bu décidé lii après Karbala xam na lu ko yoon may. xam na li ko yoon may. dëgg la waaw mais mais dëgg la. mais Karbala xam na li ko yoon may. yàgg naa décidé. dëgg la yàgg naa décidé gaa ñëw taxaw gaa mais yàgg am ci làmb. mais lii dafa leer lii. mais waaw bu leere aussi xam na li ko yoon may. dëgg la Karbala na dem def li ko yoon may rek. tey ñu jox ñu suñu victoire moo ñu gën a lépp. waaw waaw CNG ñu bu ñu jox bu bu bu bu fekkee gis leeru ñu dem xooli balaa ñu jox victoire. waaw ñun ay booyu ndaw. di fexe ba taxawal mbër mu mel nii. waaw ñu ñàkk fayda yi xoolal yi. waaw Bira Sène bu waxal maa ngi lay ziar di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. góor euh, dafa am loo xamante ne. foo ñu ñu ñu ko si làmb ji. waaw ñun suñu secteur dafa ah. metti amuñu promoteur amuñu dara ah. amuñu sax ku ñuy suñu combat ndeysaan donc bu ñu ñëwee stade waaw ñu bëre lu leer waaw daan dañu ah. war a jox ndam si biir géew gi beneen bi mooy man règlement xanaa amatul nit bu bëree génn na saaku yi wax eh, génnal génnal génnal génnal carrément si ginnaaw génnal foofu yëpp noonu da kii génn ba pare waaw n'est-ce pas. nit bu génnee saako yi nga ne jël bi si biti la. waaw kon fëgale dafa génn. waaw lu tax jox ko avertissement bi ñu dellu see. pourquoi. yow rek la ñuy déglu. waaw léegi jox ko avertissement ba pare mu sifflé waat. ok donc foofu règlement te nekkatu fa. ok parce nit dafa gi nee foofu amul jël bu amul jël kon génn na saako léegi lu tax joxuñu ko avertissement. léegi xam ngeen. xam ngeen li yoon may. xam nañ li ñu yoon di ngeen ko def nañ ko def mais lii incha baal ma teel la muy génn tëngëj barke ah. rasulullah li fa nekk si mbooloo kenn xamul lu mu am na boo yoo xamante ne sax xoolal dañu am problème car ba ñëwuñu 15 car lañ jógee combat ay millions la ci def tey mënoo ñëw daa mel ni ñun ñuy dëkk tëngëj gars yi dañuy minimiser si làmba ji nga am na loxo nu Modou Mbaye du yoon quoi. dëgg la waaw Karbala dafa daan booy pour action Modou Mbaye. jaajëf da koo daan quoi lii neexul quoi. kontaan nañ ci seen wax. jaajëf jaajëf kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax a baax a baax. damaa bëgg damaa bëgg Cheikhou joxaat ñu man ak yow fii xam nga baay baala ñun. làmb lañ fi euh, nekkal ñun làmb lañ fi nekkal. dëgg la. te am na ay décision yoo xamante ne nii. du ñun ñoo koy jël du ñun ñoo koy jël. dëgg la sax bu ñu gisee image dañuy wax. Mhm. dañuy wax li am. Mhm. mais dañuy def nànk parce que nit ñi ak seen ay tempérament bu ñu leen topp mhm. bu ñu leen toppee ci seen ay tempérament ñun dinañu yóbbu ci niveau boo xamante ne ni ñun ñoo fi nekk ñun nañu resté zen rek ci plateau bi ñoom bu ñu ñëwee ñun nan leen bàyyi ñoom ñu wax li ñu bëgg wax mais ñun bu ñu leen wax bu ñu leen waxal ñoom li ñu war a wax mhm. gis nañu parce que gis naa ni danga nga topp règlement da nga topp règlement moo mhm. tax moo tax nga waxee noonu parce que boo gisee image bi fii mi dafa leer quoi ñu koy joxaat mm. Mm. mi ngi ñu koy joxaat mais damaa bëgg ñu topp suivre action bi maag ba waaw nan leen mu jeex damaa bëgg ñu xoolaat fëgale bu bu jugee mm-hmm. fëgale bu ngor bi mu jugee est-ce que tax na que am na taxul bay balla am na lu mu takk loolu tamit dama ci ginnaaw gi la nekk day lang suuf bu laaloon suuf uh-huh. dafay takk mm. damaa bëgg seexu indilaat ma image bi mm-hmm. seexu indiwaat ko te nga ralentirel ma ko nank ci bu ñuy wàcc fes bi laalul foofu fes bi maanaam dama foog ne yeggul ci suuf laal Baye Balla doon ne laal na wala laalul mais mën na bañ a laal ndax ñëwagul mais damaa bëgg ñu suivre ko uh-huh. ñu suivre ko Baye Balla nañ dem waaw ñoom ñaar ñu ngi dem ñu dem après daf koy kal Cheikhou ñu dem Cheikhou ñu dem ñu dem ñu ah, ah, ah, ah gis nga gis nga waaw gis nga Baye Balla hmm. gis nga foofu amul fenn foo xamante ne fëkkale bu ngor tax na waaw mais léegi réew moom na dem def li ko yoon may rek moom bu fekkente ne gis na li ko yoon may doo jox ko mu toog ci kaw bu fekkente ne moom xam na li ko yoon may. Mhm. na dem def ko mais ci action bi fëgg la ci action bi nga ñu fekk sa adversaire mu ne action bi daf laa daan loo ci wax. Karba dafa neex dama ko suruxal. da nga ko suruxal. gisoo ko moo jiitu noonu suuf. ki daa neex. ñu ñu dem ñu dem ci action bi. waaw ñoom ñaar ñu ngi dem ñu ci action bi ñoom ñaan ñu ngi dem. mbokk yi ñoom ñaar ñu ngi dem ñu suivre action bi. daa bëgg a jël tànk bi foofu. daa bëgg a jël tànk bi. gis nga ñoom ñaar ñu ngi dem di arrière. ñoom ñaar ñu ngi dem di arrière. ba léegi. Ah, ba léegi non ñëw na. ba léegi attention ñëwal. gis nga bëgg naa gé bëgg na ko génnee saako yi mu kal ko. waaw. Karbala kal na ko. moo des dem. ñu ngi dem gis nga de ñu ngi dem. nañu dem. ñu ngi dem ba léegi. nañ dem loxo ba la teg. xoolal ba nañ dem xoolal loxo nañ dem rek loxo ba nañ dem dafa bëgg la morso ba laal na. morso bi moom laal na. mais moom est-ce que yegg na suuf ndax moom egg na suuf mooy wax ji. gisoo suru xel bi ah, eh, déggal mu naan gisoo suru bi eh, mais tey moom tey tey nga combat tey bëri nga combat bu métti tey fëgg ñu dem bi de yàlla xam na ne ak yonente bi benn conseil la am eh. ñaari conseil sax laay wax damaa bëgg damaa bëgg taxaw ak action bu waaw dalal rek combat bi dañ na ma dalal bul xeex xeex bu métti moo tax gisoo saa door na ma ko pañ a bët ndeysaan aha waaw waaw ñëwal ñëwal ñëwal karba mm-hmm. ñëwal fëgala fëgala bu ngor ñëwal ci combat bi ñëwal bi waaw bi conseil rek la ko bëree conseil waaw mm-hmm. weesoo lu dul conseil. waaw conseil lañ ko bëree mooy loolu yàlla sunu borom suturaal ñu. waaw ci action boobu ci action bi nga xamante ni moom la sa adversaire di contesté. Mm. yow foofu gisoo daanu nga fa. yàlla xam na ne mënuma daan si loolu. lu tax li dama si entraîné ay xeeru ngor ay birigal ay sita li dama si entraîné ba doyal ay bas boy boy virage. lii dama si entraîné ant kaay kaay. waaw wol ma sa waay. Eh. Eh, lii dama si entraîné ñii ba sonn wóor na alxuraani karim. ndeysaan dañ si liggéey liggéey liggéey ba sonn. Ah. Mm-hmm. kon Karbala manuma daan si maa ko ëpp doole maa ko daax xeex. est ah, yaa ko ëpp doole. billaahi maa ko ëpp doole maa ko daax mais combat bi dafa metti. li tax mu metti mooy conseil gis nga moo man ñëwatuma si làmb pour paraxeer préparer sama bopp parce que daa am luy topp sama ginnaaw léegi bëri mag la maa bëre bëri mag moo la daxal ñëw nga tey nga déglu voilà man loolu la ma bëre mais billaahi wallaahi wa bu doon déglu ma conseil déglu ma dara maa ko dàq boxe maa ko dàq xeex maa ko gën a agressif waaw dama kaa ñaanal rek jàmbaar la gaynde la ndaanaan ab lébu la ni man di ko ñaanal ba amaatee combat ba bëree la bokk gis nga image image dafa sew bay balla image dafa sew doy Hmm. quatre appuis la. mais ci vidéo du doon quatre appuis. cest foofu dafa am lu muy wax ci image. dëgg la Baye Balla euh, euh, une seconde Baye Balla une seconde égale vingt cinq images. waaw mhm. une seconde égale vingt cinq photos. dëgg ci une seconde mën nga ci am vint cinq photos. yu bokk photo image dafa garaaw. Mhm. moo tax kat image boo koy suivre suivre ko ba mu jeex. waaw léegi lan wax lu nekk si kanam dem démb ngor dafa daanu. Mhm. mu daanu daanu bu rëy. tey nga ñëw. Ngor daanul démb. waaw barki alxuraani karim ci démb bi muy ñëw ba croisement ba. mais de dañ fa taxaw di ko teeru ngir lan. jàmbaar la. ndeysaan kii. xale bu ndaw la xam nga kañ la judd. 98. waaw dugg si làmb 2019. année bi mu toll fi Alioune Seye toll. kon daanaan la garmi la Alioune Seye nga koy wax si biir wax. Alioune Seye moo si bu mag ñoo duggandoo lamb kon kii dañ koy ñaanal. yàlla lafal ko cat dañ koy ñaanal suñu borom kattanal ko dañ koy ñaanal suñu borom suturaal ko man gis kii moo man mooy sama lépp waaw barki Serigne Cheikh Fall borom man mooy sama lépp man bu ma demul tëddëng sax man damay mere te pourtant mënoon na ne kii sama mag la rek waaw yaayam sama yaay moo ko boot ndeysaan mais kii cër bi ma jox barki alxuraani karim gisuma doomu aadama bu ma jox cër boobu ndeysaan mënul dugg si benn affaire te waxuma te kii yéene bi mu am si man barki Serigne Cheikh Fall borom ndigal dafa jéggi doyo man damay dem ba dus foo leen bëgg a ngor ci làmb waaw xaalisam bu bëri talul boppam moom talul bu bëri la yëkkati di ko def barki Serigne Bamba waaw foo leen bëgg a yóbbu ngor ci làmb waaw ngor dañ ko war a fu sori waaw parce que ñun ne parcelle ñun moom lañ bëgg a jëli ji couronne bi te am nañ ko démb démb démb nga daanu démb ñëw tey làmb waaw suñu garaamoo ay eh, bar sëñ Bamba loolu dara lamb boo waree daanu rek da ngay daanu soo waree am ndam da ngay am ndam. waaw mais xëy na démb yàlla àndul ak ñun quoi. waaw dañ daan daan ay doomu jàmbur. waaw waaw démb doomu jàmbur daan ñu. waaw kon dañuy sant yàlla rek. waaw di wax ne maa ngi jégalu samay supporters yëpp nag. gis naa démb nag mobilisation bi ñu def. waaw ak sama fan sa ak ñi may jàppale ñëpp. maa leen di jégalu bu baax a baax. di leen wax ne si ta xale la rek. nañ si gën a teg di sant Ngor Yoff Waxam Almadi Traoré yëpp nag gis naa démb nañ ma teeroo léegi Siteu lan la war a defaraat. waaw defaraat bi du dara. waaw. fukk nga bëree démb. supporters yi nga bëree. parce que da nga xeeb trop Alioune Seye junior te Alioune Seye junior di technicien. bi nga demee ba ñibbi ba toog sa kër ba seetaat combat bi am na loo ci jàngee. non di xeebee sa Alioune Seye moom bu ma xeebul man waruma ko xeeb. bi may dugg si làmb fi la leen fekk yéen ñëpp. waaw ma neex ba léegi xale laa sax. mais sant yàlla quoi bu ñu demee ak samay kilifa dinañ ma xam nañ liñ ma juumloo mais dinañ buñ demee dinañ ma wax léegi ko rectifier waaw xale laa nag te bëgguma démb di taxaw ñu naan xale bi moo war a jëli waaw moo tax ma def yëfi xale rek bu may ñëwaatee xëy na dinaa def yëfu mag booy ñëwaat loo bëgg a indi ko kañ ko bëgg a ñëwaat waaw retour cité bu waaw bu metti bu bees tax xalaat a ko kenn non samay gaay yi déglu rek. ah sama gaay yi laay déglu rek. ah papa boo jinne si tëbu la gaay yi di wax. mooy loolu non mooy loolu. papa ah. boo jinne champion la ñu ngi koy ñaanal mu ñëwaat. Ah, ah. waaw waaw sëñ Fallou. jaajëf waaw ñëpp. jërëjëf ñi ma doon jàppale si lamba ji ñëpp. jërëjëf waaw ñi ñaanal ñëpp. waaw baax maa lay sant di la gërëm waaw di la wax ne jégaluwaat bu baax. jaajëf di sant àdduna. di wax ne na seen jaamu yaag. jaajëf bar sëñ Fallou kontaan ci yow jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax kooku mooy ñu ngi koy félicité bu baax a a baax a baax waaye incha allah lakk jën xeeru ngor dinaa ñëw incha allah dinaa ñëw kooku mooy xeeru ngor numéro incha allah xeeru ngor numéro deux lakk jën dinaa ñëw invité ngeen ma dinañ ñëw incha allah Balla uh-huh. dama bëgg dama bëgg sénégalais rek ñu comprendre mm-hmm. ñun on n'est la là pour benn mbër ñun dañoo ñëw ci làmb mm-hmm. pour defar làmb pour mm-hmm. jàppale làmb mu jëm ci kanam yokk làmb ngir yokk làmb image bu ñu ko gisee rek ñun li ñu ci gis rek la bëgg di wax gis nga sànq bi